jërë ngeen seen ànd ak seen seen youtube tas info seen bi leen di xabaar saa su ne wéy leen di ànd ak ñun dañuy wéy ci waxtaan yoo xam te ne kii di Serigne Mor Asta Touré mag ñu koy amal ci seen ko ci lii di wàllum euh, astronomie bidéew ak li nga xam moo di bourgeois tabian loolee nag daal dina ci ñëw ci ay questions yoo xam te ne am na ñenn te ci ay auditeurs yoo xam te ne daal dinañ ko koy posé jëmale ko ci lii nga xam ne moo di seen euh, lii di tabian ak seen bidéew loolee moom Serigne Mor Asta Touré daal na ci ñëw indi ci ay leeral ci képp koo xam te ne daal na ci posé ab question benn par benn kon ñu ànd ak moom Serigne Mor Asta Touré ci bi nga xam te ne tey jii daal dina koy indi moo di koo xam te ne daal am loo xam te ne laajte na ko ci ay vidéo kee ca aju ñu ngi ànd ak moom bu dee gën nga ci kër gi nga abonné euh, te it di partager ndax loole mooy la nga xam te ne moo di lay jàpp ci liggéey bi moo di tamit lay ñoŋal sunu liggéey. kon wéy leen di ànd ak seen chaîne youtube tas info ci lépp loo xam te jëm na ci ay information naka noonu ci wàllum astronomie kon bismillah ñu ànd ak Serigne mo Asta ci li nga xam te ne tey daal dina koy tontu. 5 août 1954. waaw waaw bisub alxames mhm. juróomi fan ci weeru tabaski mhm. fukki fan ak ñeent ci burjul asad mooy la tour de lion mhm. waaw tour de lion maanaam sa burj mooy burjul asad waaw burjul asad waaw mooy mooy sa burj waaw waaw bu dee sa nature mooy manam sawara la sawara waaw waaw mooy sa mooy sa maanaam sa bindu sa bindu daal sa nature ci ni nga ko mën a tënk waaw bu dee say xeetu sarax. waaw sa bidiw mooy jant bi. Mm-hmm. bu dee sa xeetu sarax mooy lépp luñ togg ba mu ñor rek. Mm-hmm. wér na sarax. wér na. lépp loo xam ne togg nañ ko ba mu ñor rek sa sarax la. wér na. Mm-hmm. waaw euh, bu dee euh, yi nga gën a mën a àndal. ci misaal. mooy burjul misaan. burjul Misaan waaw. waaw. bokk moom bokk ci yi nga gën a mën a àndal ak Burjul Jaw Saawu. Mm-hmm. parce que ñooñu boo leen àndee rek sa sa solution da daal di am solution ci yoon yu bari. nga dëgg de. nga dëgg de. barkaala bu dee see sarax mooy lépp luñ togg ba mu ñor rek mën nga koo sarax. diggante mbuuroo lépp lu ñor rek. waaw ci wàllu couleur yeeg yooy bu dé sa couleur man nga amé couleur bu bu bu bu bu son dal manam bo xamné comme ni gaynde xawa mel deru gaynde noonu kan? gaynde yu son waaw son mbokk digënté nek digënté xonk ak mbokk waaw. lu yooyu moy gën ci yow misal alhamdullilah alhamdulilah. incha rabbi. jërëjëf daan day yàgg moo tax waaye bii am naa gént koog daf maa xaw a kii waaye. waaw moom day <laughs> maa koy wax léegi daal xase jaxase programme yooyu day mujj. waaw. daanaka day daal dem ci ni ñoom mbirum géntoom dañ cee xaw a kii boo xasee dugul gént rek moo tuut. waaw. maa ngi wax sànq fi dugg léegi sax naa ko moo tax dañ ko wutal jotaay spécial moom pour wàllu gént yeeg yooyu. kon naa ko bàyyi ba beneen jamono. Hmm. waaw wax na loolu ci lay aju. allah kon naa ko ba beneen jamono. waaw. yëpp naa ko bàyyi beneen jamono incha allah. incha rabbi incha allah rabbi jërëjëf sant nañ bu baax jërëjëf maa ngi jégalu de yaa ngi Touba wala yaa ngi. waaw ah ci fan ci. jannatul Mahwa. ah côté jannatu. jannatu laa dëkk ci marché bi rek. ah ci marché bi jannatu bu bees boobu. waaw marché jannatu bi rek. maa ngi dëkk Gédé foofu fi ñëw bari na waaw. seetal loolu. bu ma ñëwatee damaa ne boori Espagne <laughs> waaye bu soobee yàlla bu fi ñëwee daan fexe jokk incha allah. bu ma ñëwee ñëw te daara ji ci barke Sëñ tuwa. incha allah bu soobee daañu ci daañu ci dégg lool. waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ne ma tontu mbokk bi sëriñ Ndiaye mi laaj sasistère yu mu àndal mooy burjul xawsu la tour de l'arc dañ ko tuddee ñaari tour yëpp sasistère mais l'arc mooy burj bi nga xam ne dañ ko tuddee burju fett comme bantu fett nuy mel ñaari ak arc yooyu nga xam ne ñuy def noonu la burj bi xaw a mel ñu tuddee ko ko. ça c'est moom lay laaj boobu léegi ñu ma xam naa balaa kenn dugg rek ma euh, defal ko ci ak ab tënk bu gaaw rek incha allah ci ñi nga xam ne mën naa ànd ñoom nga xam ne tubarkàlla muy burjul xawsu mhm. burjul xawsu mën naa ànd ak burjul jaw saa u mën naa ànd ak moom mooy la tour de Semo mën naa ànd ak yooyu euh, bu fekkee mi ngi may dégg mi ngi koy déglu bu baax euh, burjul xawsu mën naa ànd ak burjul jaw u burjul xawsu man na ànd ak burju dalwu burjul xawsu man na ànd ak burjul xamlu man na ànd ak burjul lion waaye subaa ñoom ñoo koy ëpp lu njariñu man na ànd ak ñu tuddati xeet yooyu man na ànd ak yooyu yooyu mu lim yëpp mën nañu ànd waaye yim mën yim gën a mën a àndal moom mooy burjul jaw saaw ñoom tubaarkàlla ak burju dalu mën naa ne tamit burju dalu moy la tour de verse yi moy yi mën andal surtout burju dalu ci don laj sa système pour leer na ñu jall ci kenen loolu mën naa ko sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba ñi ngi lay delloo nuyu yeb yëpp salam allah ah. alaykum man wala de salam salam wa rahmatullah 22 euh, -1966. Wa alaykum salaam bisimilah. soxna si. waaw salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. waaw sëñ Mor ñu lay ziar. ñu lay ziar ba. alhamdulilah yéen a ci le 6 3. léegi léegi waa si jàmm bu baax kay. léegi nga même ma ma ma leeral sëñ. le 6 troisième mois. ma leeral sëñ bi tuuti ñu ñu àgg ci sa laaj ci sa laaj bi. waaw man man ngaa téye ligne bi noonu rek ma leeral ko mooy ki juddu 22 euh, novembre 1976. 1976. Eh, koku burjom mi ngi don lolou mi wax non mi ngi don bisub altane lendi di ñaar fan ak jurom ñent ci wéru digu tebeski di ben fan ci burjul khaws burjul khaws moy burjom 22 novembre 1967 burjom burjul khaws la tour de sasser moy la tour de l'arc mooy Bourdieu moog Bourdieu xaqarab mënuñoo ànd catastrophe rek lay jur bismillah soxna si soxna ami waaw sëñ mo ni ngi lay ziar ni ngi delloo ziar baax wow. waaw waaw naka yaa ngi si jàmm maa ngi sant bu baax alhamdulilah waaw le six troisième mois le 6 mille neuf cent cinquante huit waaw le Wow. mois mois le 6 mars 58 huit mille wow. Wow. waaw waaw kooku mi ngi noonu bisu alxames bisu alxames mm. allo waaw bisu alxames la tolloo loolu waaw maa lay dégg waaw bisub alxames sodi waaw fukki fan juróom ci weeru waaw waaw weeru baraxlu mm-hmm. Mm-hmm. fukki fan juróom ci burjul xóot la tour de baleine mooy poisson 1377 ci gaday gi yow sa burju moy burjul burjul hóot Moy moy moy fukelu burju ak ñaar fukelu burju ak ñaar burjul hóot la tour de balen yang koy deg bu baax mm-hmm. maa ngi koy deg wa verte bu la sa couleur léegi la la bu dee dohla. ndox la dohla. ndox Natiram ndox la waaw la sa bidiw mooy nipton bi ma doon waxtaane mhm. nipton waaw mooy sa bidiw bu dee ay ay bu dee ay saraxam nag mooy luy jen. saraxam mooy ceeb ndawal gu ñorul ak ak bépp gàncax buy ñoree ci biir suuf ba tey ci ay saraxam la bokk soow ci saraxam la bokk. jërë ngeen jëf loolu moo nekkoon waxtaan ak seen kii Serigne Mor Asta Touré daal nekk indi jëmale ko ci yenn ci ay biddew yoo xam te doon na ci indi ay leeral mu mel ne lu mat ñaar sax daal di nekkoo ko ci tontu ci vidéo bi kon euh, moo ngi noonu loolu mooy li nga xam te ne moom la Serigne Mor Asta Touré doon xamle. nekk borom xam-xam moom te ji xam màcc na ci li jëm ci wàllum astronomie naka noonu ci wàllum wér gu loole lépp muy lum pekk naka noonu daal di ci gëstu ba am ci euh, fasaaxa gu rëy rëy moo waral moom moom ñoo leen ko fi indil muy indil ci yenn ci ay leeral yoo xam te ne képp ku koy note di nga ca xamee lu bëri bëri ak it képp ku dajee ko mu nekk sa vidéo dina baax ci yow ndaxte bu même critères yooyu mooy dox ci boobu ci ab vidéo yëpp rek ci vidéo ba nga xam te ne kooku ñooñee ñoo ca bokk kon mi ngi noonu loolu moo nekkoon waxtaan bi euh, tey ji ak kii di Serigne Mor Asta Touré. bu gan nga ci kër gi nga abonné nekk noonu partager ak aimer loole mooy la nga xam te ne mooy lay jàpp ci liggéey bi euh, ngir ñeneen ñi ko euh, amagul daal di koy man di am daal di ci man di jot tamit ndaxte loole lépp lu baax ki nga xam te ne moo ko tasaaree te da ciy amaate lu baax même kon mi ngi noonu ak seen seen YouTube bu tas info seen bi nga xam te ne moo leen di informer chaque fois dal leen ak jàmm jaa ngeen jëf.